internationale. C'est l'info internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. internet yi ñuy bàyyi xel ci seneinfo.net ak sene seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene defal tënku ba xibaar tey samedi di 4 mars 2023 ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. député Guy Marius Sagna ak 15 membres yu FRAPP ñoom la police teg loxo bés tey bi li ko waral nag ñoom dañ doon dem fële ca ambassade bu Tunisie ñu ne nag ngir déposé ba ab lettre de protestation gannaaw nag kàddu yi nga xam ne njiitu réewum Tunisie di Kais Saied yëkkati woon na ko teg ko ci migrants yu Afrique subsaharienne ñoom nag lu ko jiitu sax bëggoon nañu fa amal ab sitting ñu aaye leen ko. bésub tey bii la daaka medina Gounass eh, di ubbi eh, njiitu réew mi nag eh, Macky Sall fas yéene fa teew ñu ne moom nag dina bàyyeekoo Sédhiou kon ci ab roppalaan ngir dem daal foofule ca daaka kon ñu ne nag ci aéroport bu Tamba lay wàcc kon jógee fa dem foofule di Médina Gounass ñu ne nag dina fa seq waxtaan ak nga xam ne moom mooy xalif Thierno Amadou Tidiane Ba. Euh, ci événement boobu nga xam ne sax kon euh, ma dina Gunaas day dajale ay nit yu bëri yu bàyyeekoo ci biir réew mi ak ca euh, bitim réew. léew na ñeseen itam bésub tey bi la ñuy amal ziara général bi nga xam ne kon at bu nekk dafay am te sax ñu cay màggal ki nga xam ne moom mooy maam xalifa ñas ren nag nekk. téeméeri édition ak euh, benn bi euh, bésub samedi bi nag euh, ñi nga xam ne nag ñoo fa nekk fas yéene amal ay ziar wante itam cérémonie officielle bi ak li nga xam ne moom mooy gàmmu bu guddi gi jotee. ba léegi sax ci lew na nga seen la ñuy desandi démb ak coow la fa amoon ci ñëw ko Ousmane Sonko dafa amoon nag ab communiqué boo xam ne daa am ñu ne woon xalif ba moom moo ko amaloon ngir nag kii du Ousmane Sonko daal ñu sàkk ci moom mu bañ faa ñëw fekkee fa lii di jullik ajuma ji naa ko nag am ñoo xam ne dañoo bokk ci famille bi génn def ay communiqué weddi li ni mel ne sax kii di Ousmane Sonko ñu ngi koy xaar te saa yu bëggee mën na ñëw foofalee di lew na ñaseen ci mujjantal ga nag kon Ousmane Sonko dem na fa ci ngoon si kon jot naa dem foofale ca lew na ki ko accueilliroon sax di porte parole ba di Cheikh Ahmed Babacar ñas moom usmaan Sonko nag bi mu jëlee kàddu xamle na ne eh, li tax kon mu ñëw boobule waxtu fekk na sax ak nga xam ne moom mooy xalifa ña Niassène di euh, Cheikh Ahmed Tidiane ñas ñu ne gannaaw ba ñu waxtaanee nag ci lañ tënku ci kàddu ne moom dina fa ñëw amal fa kon euh, ab ziyaara wante si ngoon gi lay doon xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg 300 euh, ci ay doomu euh, Côte d'Ivoire ak Mali ñoom nag jëlee nañ leen fële nga xam ne moom mooy euh, Tunisie gannaaw nag ay kàddu yoo xam ne njiitu réew ma yëkkati na ko fa ba tax nag ñoom ñooñu la di ay doomu Afrique ñu leen fay bundu xataal moom moom nag di njiitoo réew walla Tunisie di Kais Saied xam nga ne nag fan yee ñu génn dafa ne woon daal euh, migrants yi nga xam ne kon ñoom ñooy jóge ci Afrique euh, subsaharienne te nag nekk ci ay situation irrégulière mu ne ñoom nag euh, daal ñoo fay indi ay violence ak i crime te nee na ñoom it dañoo bëgg a soppi dëkk ba dëkkub arab bi mu doon def ko dëkkub nit ku ñuul njiitu réewum France Emmanuel Macron ci tukki bi nga xam ne mu ngi koy amal ci Afrique centrale démb nag demoon na fële ca Congo Brazzaville daje fa ak nag ki nga xam ne moom mooy naataangoom di Denis sasu ngeso ñoom ñaar nag waxtaan ci li nga xam ne nag moom mooy relation yu ñaari dëkk yi lu jëm ci wàllum histoire wante itam culture moom njiital France nag ci ngoon ci sax kon la yegg bàyyee ko woon ci Angola. mi nga xam ne moo nekkoon ñaareelu étape bu tukkeem boobu gannaaw bi nga xamee ne nag mu ngi njëkkee woon ci réewum Gabon njiitu réew mi nag ba léegi démb ci guddi la bàyyeekoo foofu la ci Congo Brazzaville ngir dem ci beneen Congo ba di République démocratique du Congo xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy guerre ba nga xam ne mu ngi am ci diggante Russie ak Ukraine ñu ne fi mu nekk ni nag mbir mi takkar takkarnaase na lool fa ñuy wax euh, mu ñu ne nag ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, soldaaru kon Russie yi ñu ngi amal ay attaques yu ama am doole ñi nga xam ne ñoom ñooy armée Ukraine ñu ne ñu ngay def seen kéem kàttan ngir kon euh, buux yooyu le song wante nag fi mu nekk nii daal mel na ni ne ñi nga xam ne ñoom ñooy daal armée russe bi jege nañ lool ci nangu ville boobu nga xam ne kon moom mooy Bakhmou xibaaru sport lañ koy jeexalee ak combat bi nga xam ne war na dox euh, ëllëg ci dimanche ji ci diggante Sa ak kii di euh, rëg rëg moom Sa Thiès nag gannaaw bi mu jógee ci defet ki ko mujjee daan di booy ñaar 2 mu fas ne nag euh, ut ab victoire digganteem ak Reug Reug mi nga xam ne ba fi mu nekk nii daanoogul ci làmb ji loolu la ñu indiloon tey ci ay xibaar rabal seen tawlu dinañ jox dig daje altine jaa ngeen jëf.